audu billah bismillahi inna waliyallah xasbiyallah wa ma tawfiqiya illa billah bi jaahi jaaril badi wa xadimi shafiin bismillahi alladi alquranu qad nazala min hubtidaai wa arju indahu nuzula alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawi nawalil wali laqi lisaani waxlula min xunu qadd wajaalhu dhaakiran wa shaakiran abad fahimni al ilma wa zidni ilma wa amalan wa adaba wa fahma sudura qawmi yasraxan liddiini wan nuuri wal islaami kulla xiini fa lillahi alxujjatu albaaliga falaw shaa la hadaakumu ajmain bokki juri di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nu fas yéene ànd ak yéen ci jataay bi sëriñ Abdul Xaadir Samb di def muy jataayub lislaam waaye tey mu tànn kenn ci gaa yu baax yi indil ko waa lislaam fas ko yéene bokk ak réew mi muy sëriñ Abdullahi Mbakke di sëriñ Abdou Rahman borom dër bi ah nu fas yéene bokk ak bokk yi jataay bi bokk yi ne foofu ñi ki sëriñ Seexuna Lo noo ngi koy nuyu ak bokk yi mbokkal jataay bi yëpp waaye di nuyu mbooleem ñi nekk ci Lamp Fall TV gépp rek eh, di teg nuyoo bi ci loxol sunu wëllëre sunu xarit sëñ Ibrahima Guèye mu joxal na ko sëriñ Aliou mi kilifa gi mu jàll ci ñépp kon ci tënk rek euh, dañuy ñëw rek ci euh, sëriñ ci wet goo xam ne sëriñ Moussa mi euh, dundoon ak moom jamono nekkoon mu arrix bu mag di ab saamboor historien di saamboor bu mag te dara du woon yitteem lu mooy euh, sëriñ bi ak ñooñam maanaam liggéey ci lislaam ci biir kër sëriñ Touba feeñal sëriñ bi ak i defaram ak waa këram dégg nga ay jaar-jaaram jaar jaariñam defar ngir maanaam jiil génération bi ñëw maanaam maas gi ñëw ëllëg mën a am fuñ teg seen tànk mën a roy ci ñoom loolu waraloon ñi waroon. sëriñ bi ginnaaw ba mu taggee sëriñ bi ci ay meloom ay jikkoom mu indi ñooñu itam seeni melo seeni jikko ak ni ñu tërbiyewoo ci sëriñ bi ni leen sëriñ bi yare wax ne marasiye yim def jubluwu ci dara lu dul nit ñi roy maa ngi cey wax ne ku bëgg xam ne Cerno Faati daa def déglu ma ndax nga roy ko moo di aarif ku bëgg dégg fa mu dox ci saak ci zaahir na nga ma jox sab nopp kon nga saa gër kon ak lam wax ne te gaa yu baax yi xamle leen te way leen dana waral seeni saxaaba roy leen kon feeñal googu mu doon feeñal gaa yu baax yi ngir bëgg maas gi di ñëw am fuñ teg seen tànk am royuwaay sëñ Abdullahi borom dër bi nag daf ci bindoon euh, wolofal gu am solo goo xam ne mi ngi tollu ci euh, téeméeri bayit ak fukk ak juróom-ñaar mu defoon ko ci Bahru Waafir mufaalatun mufaalatun fuxulu ci baxru boobu la defoon way wi waaye itam njëlbeen gi mu ci waye jikko yi mu ciy wane jikko yi Sëriñ Abdoulahi aku meloom waaye itam ak déggam jamono ak yitteem ju kawe euh, ba tax mu euh, sàkkoon euh, béréb bee nga xam ne moom lañuy ñuy woy dër bi daan fa am ay meññet yu yéeme yoo xam ne daana fa sax mu way ci ginnaaw ba mu wanee jikko yi mu ñëw nag ci dër boobu yi nga xam ne sëñ bi defoon na ko fa ak euh, yafa saxoon xeeti garab ya xeeti xeeti meññet ya fa amoon yëpp mu tudd ci yu bare bari def ko ci euh, euh, tartiib ak toftale gu am solo te mooy day jël xuruf yi looy yi lay jël loy wu ne xaraf wu ne mu xool garab gum tollool mu indi ko ci kon jàpp naa ne bu ñu tuddee nose woowu rek dana mën a boole dana mën a faagaagal xëy na jombut li ñu soxla euh, ci euh, jaar-jaari si Abdu danañ ci mën a am lu bari ci ay jikkoom ak i meloom ak yitteem ju kawe kon dañuy ñëw rek ci wolofal googu muy li ñuy tabbee ci jataay bi incha allah bismillahi rahmaani rahim mu ne murit kaay leen nu seeti ka sañ ci dër ba ñu naa Cheikh Abdou Mbacké ma fent dër ba kon mi ngi woo murit yi ci ñu ànd nag ñëw seeti nag kenn ci waa sëriñ bi ku jàmbaare ba fent lu mel nii kooku mooy kan mu ne ku dem ba këram ziyaara ko gis fa xar baax te xam fa lu baax ba dolli ku baax fa bar baax ku dem ba këram dalay waar moo doyug waar muridullaahi war nay seeti dërbaa ku dem ba këram mu woddu la may la alfum nga fay say bor ziyaara ko neex na baay baa ci barke Bamba mbër ma mu donne baatin ba def xar baax fa daaru ba fent dër ba xadiimul Moustapha laa fente way wii ba kuy xam-xam ne abdooyu doomi Bamba wolof ne garab du lañ fa gajjee fa seqee garab ku ko gor bu seqee wan la day ba ku jëmbat kaani doom baa tax nga suuxat te bii doom kat ku nga ñit ŋaañ fa dër ba garab geey bamba wànqaas yaa di doomam yi yor bootam ya ndanjaama gaa ngi tuubaa ku réere garab ga meññeet maa nga daaroom sirrub seex bamba abdoo donn xol ba sëriñ baa ko budde ca yaaram jëmbat si ko mbakke abdoo toog ca jalbaa sëriñ abdoo garab gu lewet te neex ker te meññ te ñor te doo ko yësam ni dër baa sëriñ Abdooy doonay Seex Bamba xoolal defiinam ak waxiinam yor na taar baa sëriñ Abdooy doonay daam duñ ko contre jikkoom dafa rëy fulaam dafa doy raw na dër baa ab Abdooy boroom xaal moo di baayam boroom jal jal la ngir dafaan wa jalba sëriñ Abdooy jawaadum min jawaadin tebeek taar ak teraanga jumat fa dër baa sëriñ Abdoo di yaaram doomi yaaram sagan du ko sóoru sañ-sañ baa ngi fa dër ba sëriñ abdooy karimum min karimin ngorom ga ak tab ga landina moo baay ba sëriñ abdooy sujaahum min sujaahin bu gaynde mer ma xëjul fa bar ba sëriñ abdooy azizum min azizin jalaalam ak jamaalam wóor na baay ba sëriñ abdooy xadimum min xadimin ku yor baatin ne abdoo toog ca ba sëriñ abdoo niroog baayam ci baatin ku yër néegam ne Bamba toog ca lal ba sëriñ Abdou niroog baayam ca zaahir ku yër jàkkaam ne Bamba toog ca der ba sëriñ Abdou di Bamba du leb ci nasraan du marché noir du peese fa gaa dër ba du leble du leb du entré gaa yi daaroom du jaay te du jëndu maandu na yor dër ba du jëw te du jëwlu noppi ne xiim ni baayam du reetaan nit du seetaan nit fa dër baa rafet jëf saf xorom buy xool di lamsal siraatum mustaqimun moo di dër baa borom tasawuf la wattu na alxuraanam durus kaamil ba lay yendoo fa dër baa ca fondu garaam la daa waxtaan ba muy ndaw ba rajo yaa ngi raj-raji wax fa dër baa xibaari law fi lay yendoo fanaanoo mbirum surnaal ya courant baa falal baa sëriñ Abdou di naataangay murid yii bu leen sikki sàkka maanaamaa di dër baa sëriñ Abdou yi boroomi karaama seetal garab ya ca réewi almaa ma ngi ca dër baa siroog liminaat wamaa ul wirdi lay fab waxeeti galaas di jox ñay naan fa dër baa ku mar ba xondooñ mu jox la nga naan ba fengat du nëbbu ganam da koy berndeel fa dër ku xiif bay miir mu taaj lay bool fi mbooloo kafeeki ataaya lay xellee fa dër ku wopp mu faj la doktoor baa di baayam boroomi xërëm dorooy baax fa dër ba ku dof bay say mu faj la nga wér ne càndang ku laalu mu laal nga wàcc di wey fa dër ba laalu mooy ku jaan mat te kuñ fa kalaami bay bëgg a tëj mu xaar la ku weddi nga laaj ko Maryaama Njaay fa dër ba mënee fu la lim meloy Seex Abdu Jëxërën nde xar baax ak la muy xar raw na dër su ngeen dégloo ma wax leen lenni xar baax ya ca Asiis ba xotti na baax fa dër ba Sëriñ Tuuba demoon na Gabon ca baawoon di xuus ca mbeex maaka sànni yëf ca bël ba ne day jël booti géej ak lar di Tuuba la nekk ca géej gi nekk ci jéeri dër ba Sëriñ Tuuba demoon na Gabon ca baawoon di xuus ca mbeex maaka sànni yëf jëbal ba ne day jël booti géej ak lardi tuuba la nekk ci géej gi nekk ci jéeri dër ba ba ñibbisee ba sañc fadaaru daaru rahmaan la am seex abdu sotti ko booti dër ba sëriñ doo ko sañc fadaaru daaru rahmaan ñananti atam la fental réew mi dër ba bi xar fit daali def na fadaaru ak dex ndoxam ma di ba jën ya di feey fa dër ba sayaan ya gëndoo xur wa di wal fallax dex ak maa yomba wal si na ren fa dër ba yittey seex abdu mbàkke ja raw na am xel tabaaraka fiihi moog ñamu yor fa dër ba te mbëtt ak mbott daawuñu bokk ak dex janax ak jën janoo nañu tey fa dër ba li lay xar baax sa joor gi la tey nga koy bay sa dex gi di fuur sa jën yi di feey fa dër ba ataala allaahu umraka yaa aziizu wa umriya noog ña daa suuxat sëdër ba garab ya farañse suuxat loo ko baayam fa kab besa tuxal na ko yóbbu dër ba garab ya fa kongo belseeg réewi kurmaan komaan na ko yóbbu daaru jëmbat fa dër ba garab ya ca waalo jàpp ji waalo banjul ilaa segi coor kumaan na ko yóbbu dër ba garab ya saxoon ca réewi arab ba hind yu xam ya njariñ ca soodaan ma nga fa dër ba malim yafa xam bi xar fillaami jëxran te seeni njariñ di saafara gaa yi dër ba limong loriyaa ki laaj ma nga sax tey la abdullahi teel a komaan fa dër ba limal yafa sax bi xar fil miimi ren jii ña ngay duural ñoñom di ko miim fa dër ba bi xar fi def na fa xeeti naana murit bu ca naan sa kaas di fuur fa dër ba gannaaw nax naaja naajo naat na nooy na newam jaaneex ba xamp ko doy na dër ba bi xarfil faa i faale na xeeti fuddën jigéen ñoo ñaari xuurul ayni fuddën la baril falaawoo ak fanoowal limal ma faloor fariisun am na dër limal sa faloor wa sellëre sal sa fiilun tegal ma su daaw limal sa filoor fa dër limal sa pooti teg ca reseñ te xàggal garab ya saxoon ca siin sa la jiin fa dër ku leen xoolaale yaari gëtam du wannen ku leen suuxat soxol dana neex fa dër ba bi xarafi siini yam fa saxal ku leen gis te mos meññat ma doo bekkoor fa dër ba bi xarafi raa i ron ya fa sax ku leen séen ba faf ronu ron ya ren jii tabbi dër ba rumaan ak ron dañoo jaxasoo fa raxmaan rëdee ki rasañ ña ngay raddoo fa dër ba ku xam ca xaal ja yàlla na nga seeru yonneen te xam xaalis te bàyyi xuloo fa dër ba ku mos ca xewar ja dootoo xaari dëxërën te bamba xaroo la jannatahu fa dër ba garab ya ca Côte la commande di suuxat ila Abidjan ku weddi na seeti Dërba dex ak ndar géej ba jaari ndakaaru jëm puut sirub meññat ma rekki na leen fa dër ba dex ak Jurbel ba dër ya fa tooli Kawlax ca mbóoti ndoxam la ñuy roosee fa Dërba xiyaasam ak siyaasam ak xibaaram xajul ci xolub ku dul moom wóor na dër Dërba xiyaasam ak siyaasam ak xibaaram xajul ci xolub ku dul moom wóor na dër Dërba ndebaayam noonu na dex dana feeñ fi Touba bi aynin jaari seera sa feeñ fa dër baa su ngeen dégloo ma lim tey ak kimaanam garab yi ci réew mi laay bëggalim fa dër baa li mu abajada laa wolofal ci way wii garab ya jagoo xaraf ya di sax fa dër baa mu fukki yëf la yónneen wax ne moo gën ci mbooleem jaamu yàlla yi gën fa dër baa jëmbat garab ak gasub teen bind kaamil sarax su nëbboog tër yéefër fëdër baa jëmbat garab ak gasub teen ak bind kaamil sarax su nëbboog ki tër yéefër fëdër baa tabax jàkkaak xamal nit ngeen ci xam-xam dawal am yol ni sàkkal kama fëdër baa ubul ci sa kër tuyaaba la xam na yoolam sa doom ju la xëy di ñaanal raw na dër ba xubul ci sa kër tuyaaba xam na yoolam sa doom ju la xëy di ñaanal raw na dër ba tuyaabay dër du dog abadan ci dunyaa li lee tax waayi daaru ja fonk dër ba tuyaabay dër du dog abadan ci dunyaa li lee tax waayi daaru ja fonk dër ba olif oriko jasax na fa mook awoka akaliptis tofal ca isaan fa dër ba ku suuxat yi garab ngir yàlla jëxran fa abdullahi ngay dekkee fa dër ba njëkkeel ma puloox sirub allahu lay fab di xottee suuf te ron du ko xar fa dër ba pulooxab réewi joolaa pulooxab réewi yépp nga sax fa dër ba pataas ak naana jam xam poulet petit pois tegal patron fëdër ba barax ak pooro persi basanti am nañ limal pàppaaya ak petara fëdër baa wa pomkanilun wa pal muusun bisaabun wa bikraajun yilee xam fëdër baa wa ceeb ak jën limal joxët ya fay ñor yilee xam daaru noppal jeegi dër ba bi xar fit daali mbootam daaru rahmaan saxal na garab ya diina jafa xam diina jaxam fëdër ba saxal na garab ya diina jaxam fëdër ba ku weddi nga laaj sëriñ jaxatee ki ahmad limal njaga caam wa ousmane kanji dërba dërëm ba saxal na darkase mët la suuxat daqaar ak déem wa dimb keral na dër ba abou bakrin wa omar teg ca ousmane wa haydara kenn du leen waar wër na dër ba su ngeen dégloo malim file xeeti kaafam ku mos ca garab ya tabbi janaani dërba su ngeen dégloo ma lim fi xeeti kaafam ku mos ca garab ya tabbi jinaani dër ba kafe ki guro ki xeeti karoot la suuxat kokoo ki guyaab kumaan na ko yóbbu dër ba wa komkombar wa kaani wa kaani xeeñ ga wa kaani salaat wa kombolotee fa dër ba yilay kaafaatu lañ fa kumaan ku leen mos karaamay góor yàlla ya may la dër ba ci barkeb kaafi góor ñi buñ ñu kontr jigéen ñi buñ ñu yàqal ñee fa dër ba buroog formaas la ñu kii du seen maas limong siro confiteer lay naan fëdër ba bi xar fit teeru nu may nu tiitër bisëb tërte ba nang nu layal fëdër ba bi xar fit teeru nu may nu tiitër bisub tartar ba nang nu layal fëdër ba njëkkeel tàndarma meññ na foofa ay xat temaateeg tiir ja xonq na ñor na dër ba njëkkeel tàndarma meññ na foofa ay xat tamaateeg tiir ja xonq na coy dër ba temaatey persi law na fa xam na tem-tem tamaaman tamma lay laa xam na xaw ma dër ba tamaatey tamaatey perse law na fa am na tem-tem tamaaman tamma lay lan xaw ma dër ba bi xarfil waawi wóol ga bu daa ñor defal nu ko wóolu faf dinu woo fa dër ba bi xarfil waawi wóol ga xam bu daa ñor defal nu ko wóolu faf dinu woo fa dër ba matal naa xat mu naa saaway ma ñaanal te ñaax baykat bu ci munta am lii na teel a faraasu tex gerteem fa dër baa xalifatu Mbàkke fonk na tooli gerteem nee naa kilo fukk léegi mu xam fa dër ba sëriñ Abdooy première tey ci baatin waa wa zaahir ndaxte gerteem ful na dër ba yàlla defal ko daaroom mel ni Tuuba wa qudduusin wa mannaanin fa barba wa Mbàkke Kajoor wa Mbàkke Bawal wa Njurbel wa sa wa baari na faw xa dër ba wa ngay siñe ak ca déqale summa ilaa poroxaan ndëmbóor ya di fa dër baa ba mboolem réew yi mépp ba mboolem réew mépp di di weesoo ila rahmaani sorxan summa xarba ba mboolem réew mépp di di weesoo ila rahmaani sorxan summa xarba te may seex njàmme jàmm ku yiw aku wér watuulan umri moog ñamu yor fa dër baa te may seex njàmme jàmm ku yiw aku wér watuulan umri moog ñamu yor fa dër ba te may ko ngërëm te may ko dërëm yu dul dog te may nuy jaag yu xande ki jeegi dër ba te may ko ngërëm te may ko dërëm yu dul dog te may nuy jaag yu ànd ak jeegi musal nu ci booti daaru salaam salaaman te may nu ci daaru mootin booti dër ba bi jaahi abiihi maaliki daari rahmaan xadiimul Mustapha mi la may sa dër ba wa sallallahu ma alin wa sahbin alayhi li feeg ña suuxat sa dër ba subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil kon mbokk yi loolu mooy wolofal gi nga xam ne sëñ Moussa defoon na ko ci sëñ Abdullahi borom dër bi njëlbeen gi bu wane ci ay jikkoom ay meloom dégg nga euh, melaw biiram ak niroo gi mu niroog sëriñ bi niroog zahir ak bopp baatin ba wax ne boo yëree jàkkaam boo ko gisee mu ci der bi da naan sëriñ bee soo gisee ca lal ba nga ne sëriñ bee euh, niru ko ci bind yaakaar naa bu ngeen demee ci xarnu bi am na fu mu naan seen baaya séddalay jikkoom sédd ko yi ci xarnu bi mooy ba mu naan melo niru ko melo waxin defin bu ree nga waat ne du keneen bàmbaa ci xarnu bi kon melo wane na ko ci njëlbeenu wolofal gi wane ci itam yitti jum amoon dégg nga fonk gum fonkoon xam-xam ak yeewute lim ne eh, xiyaasam ak science am waaw maanaa maanaa yeewuteem moom seet Abdu ndax yaakaar naa li mu def nii eh, jamono bari na jamono avancé na lool ci ci ci ci ci xalaatkat yi waaye fii mu àggoon ca booba jamono ñu bare bari eh, amuñu xalaat boobu kon jàpp naa ne li ñuy wax euh, homme de vision li li li ñuy li ñuy wax homme de vision te wolof euh, bu ñu ko wax ci wolof dañuy wax ne da daan gis ca ceew mooy kuy gis ca ceew homme de vision la woon kon da gis ca ceew mooy borom gis-gis bu sori buy gis lu ñëwagut ah, ndax jooju yitte yaakaar naa boo waroon euh, ci réew mi ngir nga gis ko am yitte jooju ba xalaata créer ak dex dégg nga créer ay meññet yoo xam ne dëkk ba nga nekk mboolem luñ daan jóg di wuti ci dëkk bu mag dañ koy mën a am ci biir dëkk booba te du dëkk bu mag lool loolu jaakaar naa jooju yitte doy na waar lool. booleeg jaamu yàlla ak euh, dégg nga melaw melaw biiram moom daanaka wetu baatin gi du jar ñu ci xuus waaye wet gii rek ci wetu saahir nite dégg nga yeewute gi xam-xam boobu ak doylu dégg nga ak lenn lu ne nga wutal ko sa bopp te loolu yaakaar naa bind la boo xam ne bu ñu ko jëfe woon rek te mooy lépp loo xam ne war nañ ko soxla ci jamono bu ñu fexe woon ba lépp lu ñu war a ci sunu dund ñu fexe ba amal ko sunu bopp rek yaakaar naa lu bare bari ci not gi nga xam ne dégg nga tubaab yi ñoo ngi nu koy not ci sunu dundiin ak ba sax dugg ci suñu biir diine te da ko lu bari dañ leen ko dañ ko bari lu ñu soxla ci wàllu dundiin ci wàllu adduna ci ñoom lañ koy wute. waaye bu fekkee ne jëggaani gi wàññi na li ñuy yittewoo lépp ñu koy wutal suñu bopp te mën naa nekk di fexe ba eh, li ñuy dundee di ba nu koy bayal suñu bopp bañ a rek ci mbayum at ba at. mbayum nawet ak mbayum nawet waaye ñu boole nawet ak noor noonu mu ko defee fexe itam ba yeneen gàncax yi nga xam ne amul ci réew mi ñu indi ko ci réew mi boole ko ci yi ñu am jàpp naa ne boobu gis-gis bu fekkee ne état bi euh, roy na njàngaleem sëñ Abdou bu fekkee ne dugal nañ ko ci l'école yi jàpp naa ne dana am jéego bu rëy ak yokk yokkute maanaam ak jëm kanam avancement bu am solo boo xam ne euh, mën naa ñeel ndawi réew mi waaw kon jàpp naa ne daal euh, ci tënk li ci way wi mënee su cee jaaraat ndax. dama doon bañ di boore di way di di di sarxu di leeral waaye ni ngeen ko dégg rek euh, ci tënk euh, mooy sëñ Abdoulahi borom dër bi di sëñ euh, Abdoul Aziz tabaarakallaahu yàlla na yokk yàlla yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem yokk leeri sëriñ Cheikh yàlla jégal ko te yërëm ko moom ñu ko fa wutu woon sëñ Abdou mii nga xam ne moo fi nekk yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ku baax ku woyof koo xam ne benn jëw la am ñépp nangu nañ ak baaxam ak woyofam moom itam yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ba sumb ak naal yi nga xam ne sumb na ko ngir liggéeyal ko ko suñu borom may ko ci kàttan ba am ci lu kawe jort kon noo ngi sant bokk yëpp di jégalu ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.